yaakaar li ma xalaat li may wax tey ngeen dégg ko mooy taneef du am ci askan wi ci dundu askan ndax dañu dénk suñu réew ñoo xam ne seen bopp lañ fi nekkal gëmuñu Sénégal bugguñu Sénégal bugguñu askanu Sénégal lenn rek lañ fi nekkee alal bu jëm ci ñoom aleel boo xam ne ñu ngi koy jël ci askanu Sénégal di ko jëmale ci ñoom ñu war a xalaat nag ban secteur ci Sénégal mooy dox ak ban secteur ci Sénégal moo mën a dox ci biir atum 2023 du ñàkk ñoom sax def nañ ko nga tudd investissement pétrolier dëgg la ñu ngi waaj a génne pétrole loolu indi woon na ñu ñu war liggéey yenn liggéey yi investir yenn investissement yi waaye fu ngeen déggee coow ci seeni làmmiñ rek da ngeen xam ne nit ñu jéem a réeral ana contenu local ci yooyu investissement yéen taskatu xibaar yi war ngeen ko rëbb uti ji ko ba mën a wax ak askan yi lan la investissement local amal njëriñ sénégalais mën nañu tudd itam tabax ay taax ci biir Sénégal ci quartier yu rafet immeuble de luxe ma di leen di xamal ne bépp réew boo xam ne koom-koom gisuñu ko fa mu gaaw mu yem ca ay taax yu jóg xaalis bu ñuy làq la c'est du blanchiment d'argent looloo am ba tey ay réew bitim réew ay ay ay pays étranger ñu mel ni Grande-Bretagne di bind Sénégal naan Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne blanchiment am na fa bu feeñee ci communiqué des de ministres bu mujj looloo tax waaye am na mbéy mi ndax mi ngi dox naa ci dellusi si tourisme ndax mi ngi dox habitat te location ànd ak habitat ndax mi ngi dox transport ndax mi ngi dox santé éducation lépp dafa mel ni koomu Sénégal dafa paan kon dinañ des ci dund détérioration pouvoir d'achat maanaam njëgu dund bi dina gën a jafe dund bi dina gën a jafe ci askan wi ndax njëg yi dinañ yokk wàññeeku bii nga xam ne nee nañu dinañ ci jublu ba indi ko mënuñu ko te ku ne képp kuy joxe dépense képp ku yore dépense di jëndi marché xam na li may wax dina ko nangu ceeb dugub dugub huit cent francs jën ndax des yàpp quatre mille francs la kilo

di nga soxla gerte doo ko am te moo xew te ñu naan un million six cent mille un million sept cent mille tonnes ceeb bi nee nañu kooku président ci boppam moo ko wax mu ne deux cent mille tonnes trois cent mille tonnes ñu daal di autosuffisant maanaam loo amati loo xam ne ni da koy jëlee bitim réew ci wàllum ceeb indi ko ci Sénégal waaye fàtte na ne taawaati jéeg un million deux cent seize mille deux cent vingt six mille tonnes lañu ñu jëlee bitim réew indi ko kooku ci ci benn at ñaari at di nga ko mën a wàññi ba mu ba mu àgg ci deux cent mille tonnes mënut a nekk dinañ des ci di dund ay scandale financier man da dara jaaxalatuma ci ñoom dinañ ci des te nag dafa mel ni sax dañuy génnee scandale guy làq scandale da ngay jublu ci bii scandale armement bi surfacturation secret défense boo xam ne bii warut ñu dal di indi cour de de de de contrôle cour des comptes ak euh, li li xew ci ci fond Covid te nag ñu jàpp ne li xew ci fond Covid bi lii nga xam ne lii Cour des comptes feeñal na ko lu tuuti la de ndax audit dëgg buñ ko waroon a def dañuy liim te mën nañ ko képp koo xam ne dimbal nañ na la dimbal ndimbal di jóge na ci état jëm ci yow dañ la war a def ci benn fichier bind sa tur nga xam ne yow bind nañ la képp ku jóg war a contrôler mën ko contrôler te loolu la ñu waxoon ca ca ca ca bi ñuy naan dañuy dimbale Sénégalais yi attention ndax xamoon nañ ne lii dina am dañu nekkoon kon na ngeen génnee fichier képp koo xam ne dimbale nañ ko mu feeñ ñu mën ko xam lay buñ ci jógee ay centaine de milliards réer nañu ci ci ci ci fonds Covid looloo am te nag ñoom ci seen bopp sax duñu làqatu ndax mille 2018 bi jiitu woon élection présidentielle 2019 dañu ne woon ah budget 2018 moom day doon budget social xaalis bi ñu pasar pasar séddale ko joxe ko muy fond de campagne bi ci ci lu bëri budget 2019 itam moom ngeen ci dégg budget 2023 moom ngeen ci dégg le budget sera social kon nañu waajal xam ne ah li ñu dundoon deux mille dix huit moom dinañ ko dundaat deux mille deux mille vingt trois dinañ des itam ci rëbb activiste ci rëbb journaliste ndax ni ma ko waxee sànq génn nañu ci démocratie dugg nañu ci lu lu lu gën a nuru euh, dictature waa kon luy pexe luy pexe te ku ne déglu premier ministre bu bees bi muy oote consolidation consolidation du leneen sudul lii nga xam ne ñu ngi ci di ko doxal nañ ci des gën ci dëgër loolu du pexe du yoon jot na ñu teggi bi yoon jaar ca feneen jot na ñu indiwaat rupture loolu la Sénégal soxla ndax buñ ko defulee ah bés na ñu waxati ko de yal Abdoul Mbaye de waxoon nañu ko Sénégal dina dund lu jafe dina dund lu metti Sénégal li mu soxla mooy décrispation politique ndax politique mën nga ko te doo ci boole soxor ak tooñ ndax di nga mës a tooñ sax ko warut tooñ waaye àgg nañu foo xam ne jot na troisième mandat ñu bàyyi di ko wax loolu mënu fi indi jàmm jot na ñu bàyyi di topp opposant persécution ndax loolu moo fi xewoon loolu moo fi xew ba tey jot nañu bàyyi journaliste yi délit de presse jot nañu bàyyi di tiit ci réseau sociaux yi ndax rekk dëgg bi ñuy tasaare ak di tëj activiste yi mën nañu yem bu fekkee ne réseaux sociaux yi ci interdiction par le réseau social loolu moo jot na ñu jiital la patrie avant le parti loolu la ñu diggoon 2011 2012 loolu la ñu gëmoon jot nañu dellu ci jot na ñi nga xam ne ñii sopp nañu di soppi suñu constitution ndax nag dañuy faral di ko fàtte waaye ci fukki at soppi nañu constitution Sénégal cinq fois juróomi yoon ñaari at yu nekk ñu soppi président de la république warut a def lu ëpp ñaari mandat te duma ci sori bu ngeen bëggee xam lu tax président la république warut a def ñaar lu ëpp ñaari mandat na ngeen dégluwaat li Macky Sall doon wax ci li jëm ci lii jot nañu am président la république boo xam ne dafay respecter suñu constitution jot nañu am président de la république boo xam ne dafa respecter Sénégal respecter askanu Sénégal jot na ñu am gestion sobre et vertueuse ñu ngi ci doon oote en 2011 2012 alelu Sénégal ñu xam ne mu ngi des ci Sénégal mu ngi des ci askanu Sénégal waaye politicien du ko akimoo di yóbbu këram jot na ñu daal mbey mi ci Sénégal ndax nag loolu moo mën a indi xeex xiif te gàcce la Sénégal ñu ñuy am at bu ne lu jege un million de personnes ñu xiif ñu war leen a dimbale ci ndimbal bu jógee ci bitim réew te bu ñu fay ay mbéy mi bu boobaa njëgu dund dina wàññeeku nooy oote consommer local te amuloo production locale nooy oote consommer local te production locale njëg mi ëpp lii li jógee bitim réew waaye bés bu ñu faydaale mbéy mi ba production locale naat bu boobaa consommer locale dina yomb dañu war a itam indi koppar ci biir dëkku taax yi ci naka ci poos yi liggéey liggéeykat yi dépense boo xam ne mi ngi jóge ci budget dafa war a jiital jënd loo xam ne mi ngi jóge ci sénégalais entreprise sénégalaise artisans sénégalais man barke Dembo Njaay maa ngi woon Thiès toog ak menuisier métallique mu won ma lampadaire solaire yoo xam ne daf koy defar moom mën nañu defar lampadaire solaire fii ci Sénégal looy jóg di duggal cinquante deux milliards ci lampadaire solaire dénk ko société bu jógee bitim réew 52 milliards ñu mënoon ko mënoon na des ci Sénégal liggéeyloo ay ay sénégalais jot nañu jiital wara liggéeyloo sénégalais jox leen emploi ku am emploi ngay ngay ngay nga am euh, looy fayeeku weer waaye loolu ñu ngi ko mën a am ci grand projet ñu wàññi ko ndax grand projet bu ngeen ko déggee rek ñu ngi liggéeyloo entreprise étrangère bu jógee bitim réew ñu ngi liggéeyloo fay ay ouvriers étrangers waaye boo jiitalee grands travaux à haute intensité de main d'œuvre lu mel ni xeex euh, mbënd mais bu boobaa sénégalais ngay fay loolu rek a tax kat plan décennal de lutte contre les inondations ñu tegoon ko fële indi leneen.